sama gal TV mbok internet yi ñu ngi fi ci Fila ci bisi muju yi tay nak ñi ngi taxaw ak benn bergerie bo xamni borom dina ma wax fi may fan kilifa gi ma ngi lay nuyu. wa Cheikh bi cheikh amane la ñu ngi lay bëgge bu baaxa baax di jox sa wàcci way wa di wax ni ñi ngi lay dalal ak jamm nak di wax ni Fila bi mo gis nga li fi ne. kenn du la ko wax. sha allah di bëgge gaa yëpp. fi mooy ban bergerie. wa fi moy bergerie Serigne kosso mbake uh-huh. nek keur Massar tolo ablay wad yow kan. waaw ah, man maay Bassirou Diop. Mhm. ak sama rakk bi nga xamante ni mooy Cheikh Ndiaye. ñun ñaar ñuy liggéey ci bergerie bi. kañ la bergerie sëñ kañ sa euh, sëñ Kosa Mbacke taxaw. waaw bergerie sëñ Kosa Mbacke mi ngi taxaw ci deux mille quinze. Mhm. waaw bientôt fi mu ne nii six ans et demi la am quoi. waaye. Mhm. boobaak léegi seen trajectoire fan ngeen liggéey ci nan ngeen duggee ci élevage lan moom lañ ci dugal. waaw liñ dugal ci élevage nag mën naa ni histoire bu gudd la. waa quand nag chemin bi moom donte bari na ay rëq-rëq. waaw mënut a nag moo ci am ànd. waaye ba fii ñu toll nii moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Ah. ngeen liggéey ci instant ba fii. waaw ñun ñu ngi liggéey ci Abdou Fall. su sama base lépp nag. Uh-huh. ci Abdou la. ndax dafa nekk xar boo xamante ni daf ma impressionné. Uh-huh. yàlla dogol ci moom laa tàmbalee sama liggéey. waaw ah, fi ne nii nag maa ngi ciy dugal Saalum. di ci dugal Birahim. waaw di ci dugal yeneen champs yi daal macha allah mais sama base moom Abdou Fall. Abdou Fall waaw. tey ñu ñëw fii fii la nga indi ma benn jeune mal indi ma benn grande femelle ak ay agnel kii mooy kan jeune mal bi. waaw jeune mal bi moom la ñuy wax Jésu. nekk surtout Rihanna. Jésu waaw Jésu bu ñu waxee Rihanna. Uh-huh. moom mooy triple champion cercle des éleveurs de la banlieue bi amoon. Esat Amadou Bari. maamam moo jël trois éditions yëpp tegale ko. Uh-huh. jël agnel. Ane bi stop mu jël espoir benen année bi stopat mu ñew jël adulte bi. wa mu nek jeune mal bo xamantene nak bu ñam yaakar la. mu ngi sogam 10 mois. wa yaayam di domou Riana papaam di full option. di setu Ibrahim, ak serer ak Assane 2 ak Lat full option bu Famara. voilà kon deg nga ko. Ah, waaw léegi mi ngi BKR ci Omar Sow. waaw jeex na xar moo xam ni ah, waaw ba ma gisee RCS ba xam naa ni am na fu mu laal foofu. rafet na trop ndeysaan dëgg la. dëgg la tey euh, ma ñëw gis benn grande femelle boo xam sax moom wàcc na ci foire bi euh, mais moom mooy kan. waaw moom mooy yaakaar. ok waaw moom di sama base femelle comme ni ma la waxee rek di Abdou Fall moom it. Mhm. côté yaayam nekk séeréer Basir ak César. waaw nek nekk famille bu ma judul judul maa judul juddulu judul papaam juddulu yaayam juddulu ay maamam. waaw ah, yàlla dogal nag mu juree fii. ci foire bi. waaw joko ah, jël tur bi nag jox ko foire bi. jox ko fila bi. incha macha allah. fila fila kon fila naa ko naa si ci kanam xool foo xool lan lay joxe. incha allah rabbi incha allah. tey eh, yi nga ma indil say production lañ wala. waaw yii yëpp nag maa sauf bi di rakk yu jeune mal bi. ñom ñaar momit di doomu full option. full option mo croiser rakam bu jigen mom mu judd ci ganaw yalla dafa dogalon ma teblu won ci beggon ci jigen yalla jox ma góor ci la dem après ci ginaaw gi jënd doomam bu jigen modé la ko jënd nak may bi done période bi mom dina a saf tuuti mais sinon bu ko wéso mom leneen li fi nepp lepp ma len wa ndax bi riyana di daanu mbote bi la nampal, nampal muy teung bobu di naan Mom la done nampal mo as wa mais sinon mom li fi jiddo lepp wax 2015 ak léegi bergerie Serigne sa Mbacké fan la toll ci élevage dugg ngeen ba nekk ci diggante commercialisation wala yéen a ngi defaraat ci champs yi ba léegi. waaw xam liggéey élevage moom dafa nekk loo xam ne dafa yaatu te du pare à tout moment da ngay liggéey di avancer di dox étape par étape moom lenn rek la élevage mën xaalis rek moo lay jox liggéey bu gaaw bu yàlla dogalee ni nag liggéeyewoo ci xaalis. ci croisement ngay liggéey pour mën ci étape par étape ngay dox ba pare di def croisement yi sévère di dox ndànk-ndànk ndax loolu moo lay tax nga bëgg nga mën a yegg fi nga bëgg a yegg te doo am fakasal ci ban nga ciy liggéey waaw man ba euh, bis dina ñëw la ko suñu borom defal kon Bédié euh, euh, mu nekk ak Tektal bi ak noo gisee filaa bi

dina gëna jëm ci kanam té li mu wane mom ci première édition sha allah am nañ yaakaar ni bu deuxième édition bi ak troisième édition bi ñëwee dina am solo lool sha allah. wa numéro téléphone bi nak 77 la 635 20 86 sama numéro frère bi di Cheikh Ndiaye di 76 euh, wala ma joxat 77 bobu di 509 1701 muy ñaari orange yoy wa bu dé lieu bi mom ñi ngi dëkk Kër Massar toolu Ablaye Wade. macha allah. kontaan nañ ci. bëgg bu baax a baax sax.